ñu nuyu leen laata ñu leen di jox li gën a fës tey ci yéenekaay yi ginnaaw ba yoon tegee loxo ñeenti sage-femme ñu tuumaloon ci affaire Astou Sokhna procureur joxe na ndigal ngir ñu tëj leen un an ñu jotee tëdd un mois ferme jàmbarloo gi am ca Ukraine daal di jur ay ñol-ñol ci marché mondial naka noonu carburant bi producteuru zone des Niayes dal alimenter seen ay pompe agricole dafa jafe fi mu toll nii dolli ci njëgu saaku engrais bi dafa yokk loolu waral ñoom producteurs agricoles yi di woo gouvernement bu Sénégal mu jël ci ay matukaay